fii ci place de l'indépendance traîneau bi indi woon cadeau yi pétard yi lakk nañ ko lu naqari visiteur barab ba. li nga xam ne mën naa taal euh, kër nag kooku mën naa lor nit euh, ca nit nag bu fekkee de def mbégte ba fa andi ca loraange waaw loolu nekkul nekkul loo xamante ni yàlla digli na ko daal. yow magum jëmm ñoo koy jënd ko taal waaw xale yu ndaw yi sax ñemewuñ ko nañu ut ko ETS yu ndaw rek ñii rek mu def ETS tuuti rek mu jeex. xale yi pour xale yu tuuti yi la rek mais magum jëm ngay gis muy taal xaw ma dafa amul problème xaw ma daal ah biim biim ba fajar magum jëm ah xam nga loolu da day am lu muy nduróol quoi nañ si jóg daal ñu génnee ñu ñu tere loolu daal si réew mi daal vraiment euh, pétale bi mag daal man sopp ko daal looloo waral askan wi war a xool yeneen i mbir ngir wone seen mbégte kon nag bu feet yooyu ñëwee war naa am ne lu ñu ko manifesté wala du di taal ay pitaar ndax am na ñoo xamante ni loolu day def ay effection ci ñoom Euh, buñ ko déggee euh, nekkul daal lu gën ci ni nga xamante ni moom la ko mën a misaale nekkul lu gën am na neneen luñ ko a fest mën a neneen ko mën a manifesté lu bokkut ak taal ay pitaar euh, ci dëkk bi di tiital nit ñi ak it xale yu bari di ci am ay gaañu gaañu nekkul lu gën. xale yi nag lu ñu taamu la waaye ñoom it yenn saa yi ñu gaañante si. waaw man damay utiliser pétard suñu kër day jaay pétard sax. waaw mun na def dégâts kay mun na la gaañ des fois sa xarit day taal dugal ko sa biir poos mu lakk la. des fois mun na la gaañ quoi wala nga fekk la nga toog mu taal ko teg ko sa côté mais mun na la gaañ c'est dangereux quand xumba xumbali njeexitalu at mii dafay faral di ànd ak jëfandiku ay pétard mu nekk lu mën a jur ay jéeyi te yenn saay mu taal ay kër ci kàddu ñi ñu waxtaanal.